naam barakallahu fiik am na ku laaj ku busa njabar ba pare rëccu ay naam ku njabar rëccu loolu lu baax la njabar dañ ciy tuub nit ku njabar day tuub te dafa war a rëccu dafa bokk ci charte tuub nga rëccu li nga defoon ci ay bakkaar dafa bokk ci charte tuub nga rëccu li nga defoon ci ay bakkaar comme njabar lu génnee nit diine lislaam la yalla sallallahu alayhi wasallam neena ku dem ci njabarkat nga gem la muy wax weddi nga lu yalla wacce ci muhammad senegal nak njabar dafa nek lu dagan surtout jigen yi discours sénégal mooy boo bërewul ñu beure sa kaw lolu moy discours sénégal mooy boo njabarul ñu njabar la comme da nga wara njabar lolu lañ lay gëmloo lo senegal gis kat dafa ko dara mu dem ci kat kat dafa ko dara sénégal doo ko def dara mais day wuti njabarkat parce que loolu lañ ko gëmloo day judd kër gis papa ja di njibar gis yaay ji di njibar dafa jàpp ne loolu baax la moom su màggee ci loolu lay nekk di njabar ñu bari ci sénégalais dañoo weddi yàlla te yëguñu ko ibnu salaasal nee na man ataa arrafan aw kahinan aw sahiran, fa saddaqahu an shay faqad kafara bi ma unzila ala muhammad ku dem ci njibarkat wala gisaanekat wala seetkat xadis ibnu masud dafa tudd ñett ñëpp mu ne kaahinan aw arraafan aw saaxiran ku dem ci njibarkat walla seetkat wala gisaanekat mu ne kooku weddina lu yàlla wàccee ci muhammad ñett ñi la boole nga dem ci selbe pour mu seetal la wedd nga lu yàlla wàccee ci Muhammad nga dem ci Mara Niass mu seetal la wedd nga ci lu yàlla wàccee ci Muhammad nga dem ci Karamoxo xaw ma lan lan jinne mu seetal la wedd nga ci yàlla wax ci Muhammad moo xam nag dangaa dem ba këram moo xam danga koo woo téléphone bàyyi leen xel de du dem bi de soo toogoon tey bu nekk ci tiktok bi di ñibara nga woo ko téléphone naa ko seetal ma nàngam nangam yow weddi nga lu yàlla wàccee ci Muhammad mooy weddi nga diine lislaam yow génn nga diine lislaam yépp nag re diine la mooy Sénégal dafa fàtte yonente bi jox na ko ay musluwaay yoo xam ne moo ko doy ci njabar ñun ñii ñëpp dañ ñuy njabar man gaay yi woo nañ ma fi ne ma dañ lay njabar mais dama xam ne ginnaaw yàlla ak askar yi may def moo ma protège dew ci benn sëriñ waa Saalum woo nañ ma fii ne ma ñu ngi ci ñu ngi ci faydu bi bu ñu ci yow dootoo wax benn way woo fi wax ma lolou loolu du benn du ñaar du ñet mais dama ko dama ko wax dama ko wax du sama ñambaare du dara dimbalu yalla la mais dama ko wax pour ngeen xam pour ngeen wekk seen bopp yàlla mais way yalla yi muslu way yalla yi mu ngi fi mo gëna for foor kat yonent salaa sallam bo xeye nga jang ikhlas falak nas. neena yak yàgg ka dalay doy ci lepp dalay protéger ci lepp ibn qayyim mun ku ku yew suba jang ikhlas ñetti yon falak ñetti yon nas ñetti yon neena na njibar ak beut ak ñaan du mun ci mom dara ngor nga def la même chose mais Sénégal dañ koo gëmloo ni boo bërewul ñu bëre sa kaw lool lañ def ci bop bi lool lañ ko jangal nga gis ñoo xam lu ñu am ci xaalis ñu ngi ci njabar tàqale jëkkër ak jabar tàqale euh, papaak papaak doom tàqale frère ak sœur kese sénégalais mu dafa dof njabar rek jabar rek kenn gëmu ci yàlla wala ñu ci bëri bokk gëmal yàlla ñaata ñoo fi nekk du ñu njabar seen àdduna mu ngi dox ñaata ñu dul njabar ñaata lañ ahlu sunna yi kenn njabaru ok ndax am na ci ñoo xamante ni ñoom xëy nañ amuñu ñu lekk wala xëy nañ amuñu naan am na si àllu sura yoo xam ne yaa leen di gis ñu am alal ñu ngi dund ñu ngi si jàmm te pourtant utiliser wuñu jabar pourquoi yow nga gëm ne da ngaa war a jabar rek pour sa aduna baax cheikh bi bal mbokk yi ñi mën a nañ muté big taf mi muté leen ko pourquoi nga gëm ne yow sa aduna pour mu baax faaw nga jabar pourquoi nga gëm loolu pourquoi mënoo gëm ne sa aduna mën na baax te njabaroo mun